wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi din mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñi ngi leen di nuyu te di leen siyaaro bu baax di leen ndokkeel di leen balu aq di balu aq jëpp di ndokkeel jullit yëpp rek ci xew-xew yu tedd yi nga xam ne moom la ñu dëgmal rawatina di weeru tabaski ak bis bi ci boppam di bis bu màgg ci lislaam ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu bu baax sëriñ Mbàkke Abdourahman ci jataay bi nga xam ne daaira Muxaddamatul Xidma dana koy faral di ànd ak moom muy émission gàggantiku tey jii ñu ñëwaat fii Daaru Salaam Ndaam ngir fas yéene indi ay bind yoo xam ne dañ ciy gàggantiku ci suñu wàllu diine loo xam ne danañu dimbale fii dimbale ñu tamit fa ñu jëm euh, émission bi di am weer wu nekk ñaari yoon muy le 9 ak le 23 ci weeru tubaab bu nekk bokki jullit yi ak bokki taalibe yi di ci yónnee seeni laaj léeg-léeg ñu joxe ay bind yoo xam ne bind fiq la yoo xam ne dana mën a jariñ taalibe bi ci waxtu wu nekk kon sëriñ bi ñu eh, jébbal la kàddu gi nga nuyoo bokki taalibe yi ak bokki jullit yi ñu jublu ci laaj yi nga xam ne moo fi rot ngir jiwat cee gàggante ko aouzu billahi min alcheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. sëriñ Abdoul Ahad maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi ànd ak ñun ci ëttu xam-xam bi ginnaaw bu ñu siyaaree ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha nuyu bu baax sëriñ jiite daayiratu Muxaddamatul Xidma ak mbokk yëpp di ci taxawaay. mën hmm. nga ko waxee jamono ji nekk bokk ci jamono ñu barkeel yi. ndax ñu ngi nekk ci al ashhurul xurum weer yi nga xam ne suñu borom moo ko barkeel waxoon ne bu ñëwee bu ci bu leen ci tooñ seen bopp wala tazlimu fihinna anfusakum ah. muy weer yoo xam ne lu tuwaay doon def ci lu baax dañuy bëgg mu yokk ndax day fulu luñ ci doon moytu ci safaan nañu bëgg mu yokk kon ñu ngi ci siyaare ñëpp di ci ndokkal ñëpp di ci baal ñëpp àq te sàkku ci ñoom ñu baal ñu jërëjëf sëriñ bi eh, ñu ngi lay delloo siyaar bu baax it di la ndokkeel di la ñaanal di fàttali bokk yi ne eh, képp koo xam ne am nga laaj boo xam ne war nga ko laaj ci émission gàggantiku man nga ko yónnee ci numéro bi 78 689 28 28 78 689 28 28 sëriñ mu mel ne jub nañ bisu tabaski muy bis boo xam ne euh, bokk na ci sunna yi nga xam ne yu feddaliku la bu ñëwee am ay mbir yoo xam ne jullit yi danañ ko ci def ngir jaamoo ko seen boroom ak euh, sante ko ko waaye niñ koy waxee tamit ci jullit bi maanaam mu xam ne lépp loo xam ne daf koy def rek ak lu mën a doon rek am na lu ko ci lislaam sant la nga xam ne mooy atteya ak la ca gën ak lam ca war a moytandiku ak li nga xam ne war na ko caa def moo tax fi mu nekk nii tey suñuy laaji gàgganteku dañ koo jëmee ci bind yoo xam ne bëgg nañ koo gàggantekoo ci tabaski ci boppam kon laaj bi nga xam ne moo ci njëkk sëriñ bi mbokk mi dafay laaj mu ne lan mooy maanaay tabaski ci boppam maanaam tabaski ak lan mooy ay ngëneelam ak yan yitte la am ci jullit bi euh, jërëjëf sëriñ Abdul Ahad nga ko waxee ab jullit ci boppam sax lépp lu muy dugg rek muy mhm. tabaski muy leneen mhm. war naa xam lu cay àtte bi yàlla ak nu ñu ko war a defee mhm. tabaski jaamu yàlla la uh-huh. jaamu yàlla goo xam ne tuur deret lay doon ju nga xam la mooy tabaski euh, gàtt bi ñuy wala li ñuy tëral di ko rendi ñaare loolu lañuy ñuy tudde am tabaski uh-huh. loolu nag kon lu ñuy rendi la te jublu ci jaamu yàlla ci am jamono yu ñu koy def uh-huh. amit sartu yu mu àndal mën nañoo wax ne loolu mooy tabaski dëgg-dëgg ngeen yu bari la am nag Euh, bokk na ci ku ko def ah. te yàlla suñu borom rekk tax am na yiw bu baree bari woo xam ne ma ngi lay nekk euh, wala ci yàlla dikk ah. bu ko defee loolu day firi ne kon képp koo xam ne suñu borom baaxee na la nga mën koo def boo ko defee tuyaabaa nga ci boo xam ne deret jooju ngay tuur aw yiw la ñeel la bu yomal xëy amee suñu borom dala ci fay lu baree bari kon euh, bu ñu bëggoon a wax euh, nga ne lim am moom doy na rek wax li ci Ibrahima salaam wax ne euh, waxoon na ne saa boo xamee ne nit kii dana waaw daa wax sax ne bisu bisu tabaski kenn def fa jënn jëf ju gënal yàlla tuural ko ci deret hmm. bisu tabaski yu baax yooyu la ci def dañ julli dañuy saraxe dañ jokk mbokk yu war dañ ko def waaye nee na islaam moo loolu ne maa amila ibnu aadama yowma nahri eh, ahaba lu ci lu ci ni ci yàlla bëggi tuur deret bëggiwu ci loolu nawet uh-huh. wax ne it bu yomal xiyaamee li nga li nga rey gàtt boobu nga rey day ñëw ànd ki ba jënam ak kawaram ak wéy ak lépp daal uh-huh. noonu nga ci tuyaaba ji dara ci manqué noonu wax ne deret ju ju ngay tuur balaa laal suuf maanaa ngërëmul mbégum yàlla nga ci macha loolu duñ mën a doyloo wax ne kon bu ngeen ko def da ngeen ci ànd ak xel mu dal ak xol bu sedd. Hmm. te xam ne lu baax yàqu leen foofu leen da ngeen di jaamu yàlla ci jaamu mbir moo xam ne mën ngeen ci amee àjjana. Hmm. ndax mën ngeen ci am ngërëmul yàlla. solo gi nag doy na ci ak jaamu la maanaam mbir moom. Hmm. yàllaa ko digle yàlla moom jaam ñi rek doy na wane solo te dañuy wax ne fa salli li rabbika wanhar. jooju nekk ci kaw kawsar tabaski lay la julli bis boobu dikkee na julli ngir yàlla waaye na nga loj na nga tuur deret uh-huh. kon am jaamu yàlla la joo xam ne daa bokk ci li jëmmal lislaam uh-huh. wax sax ne ab dëkk dëkk buñ maase woon lànk nañ kenn du ay jullit uh-huh. lislaam day digle ñu jël nga naa jëf jëflante ñoom waaw moom nodd bi nga xam ne doon ay sunna la waaye bu ab dëkk maase woon ci gàntu ko dañuy digal kilifa jullit ñi na jël nga naayu songu dëkk boobu ndax day jëmal lislaam ku mhm. ñëpp maasee gàddu ñu bi ab dëkk rek complot nañu daal duñ ne duñ tabaski moom jaral na sax ñu jël ngànnaay am day digle ñu mhm. loolu wane na solo mhm. am na solo waaw am na solo daal jërëjëf sëriñ bi xam naa ñaareelu laaj bi kii daf ne lan mooy àtteeb tabaski ci boppam maanaa ci góor gi ak jigéen gi lan mooy ab àtteeb ci wàllu tabaski waaw àtteeb tabaski it sunna la woon mu akkada lëng ci waxe borom xam yi mooy li li li ñu sukkandiku ci gërëm Malick donte sax am na ñoo xam ne farata la hmm. mooy waaye na mu akkada la. sunna suñ feddali su dëgër dëgër la. Hmm. ci ku ko man koo xam ne as gor la nga man ko. Hmm. nga man ko. moo xam góor nga xam jigéen nga moo xam mag moo xam ndaw nga liir bu juddu woon sax doon jëriñ masalal bàyyam bàyyi ko fi alal sunna la tuuti si ki nga xam ne dafa tàggoo sagoom te am alal. sunna la ay kilifaam tabaski kon aju tu mu doon mu kàllaf mu ñàkk doon mooy daal naam alal joo xam ne tabaski mën na cay uh-huh. man-man gi ki mu nekk sunna muakkada ci moom mooy ku ko man njëg gi nga koy jënde uh-huh. bu mu doon loo xam ne mënoo koo ñàkk ci li aju sa dund ci at mi parce daal loo xam ne tey ñu ne teel a tabaski uh-huh. waaye booba tabaski déwén lii nii doonul loo xam ne boo ko boo ko jox jëndee xarum tabaski loolu dana ñëw ci biir at mi di soxla su mënta ñàkk fajatu doo ko mën a faj hmm. ci misaal daal dañuy wax ne ki ki nekk sunna ci moom fekkonte ne ku dajale nga daal li ngay ci at mi dépensé yeeg bu dee fay ndox ak bu dee fay fay ndox bu dee fay courant ak yi nga xam ne mënta ñàkk ci sa dund yëpp bu desee lu mën di ko tabaski tabaski sunna la ci yow hmm. moo tax léeg-léegi ni ko nit ñi jàppee ku ne bëgg ko defee ak ni ñu ko digal jëm loolu dama wax dëgg woyof na moom nga xam ne da am loo dundee ci at mi ba mu des jëgu tabaski nga mu doog laa war kenn sant la nga leb ko hmm. bu ko bul doon xaalis boo xam ne boo boo ko ci defee hmm. dana am soxla soxla bu ñëwee da nga wëndeelu ji wala nga yelwaan yi wala nga lebi ngir faj hmm. kon bëri na lu nit ñi teg seen bopp loo xam ne ñoo ko tegoo waaw sunna sunnatu ay na la it nag xanaa képp ku ko man moom moom mu jëlee nag sunna bu ngeen bokkoon jënd kërit ku ne man ko ku ne sunna la ci moom waaye nag na fekk mu man la man man gi mooy lii. Uh-huh. moom sunna la te diñ ko waxee léegi su ko ab dëkk maase woon ci gàntu ko lislaam day santaane jël ngànnaay jëflante ñoom. Uh-huh. jërëjëf sëriñ bi uh, bokk bi dafay laaj mu ne bëgg naa xam ñaari ban moo ci gën ci tabaski maanaa nga saraxe njëg gi wala nga rey xar mi ci boppam. xam nga tabaski sunna la. Uh-huh. saraxe nañ ko sol dundal sunna moo gën coobare waaye nit ki fi ne jëndam xar tabaskee ko moo gën. masalan jënd xarum cinq cent mille wala lu ko jege moo gën sarax million bi suuf hmm. ndax fii dangay dundal sunna te léegi jëf la joo xam ne yaa ko coow doy kenn force kenn dër loo mën a joxe ci xar daal jënd xar rendil ko yow xar su ko defee ba noppi nag hmm. dimbale ñeneen ñu def ko moom loolu yiw bari hmm. waaye nag bul ne man du ma tabaski li mu bëggoon a tabaski dama koy saraxee boo ko defee def nga lu ñu gën lee nga bàyyi mu gën léegi def jërëjëf sëriñ mbokk bi dafay laaj mu ne yan xayawaanaat maanaam yan gàtt lañu war a tabaskee ak yan ñoo ci gën. waaw tabaski bahim bahimatul lanaam la alxuraan wax. Hmm. mooy jur kër yi. juri kër. gàtt la. Hmm. ak nag ak gëléem. Hmm. gàtt mooy xar ak béy. nag am na yenn nag yu ak nag yi kër yi ñu xam. am na ñaati xet gi gëléem benn jigéen ak yi am ñaari jigéen. waaye daal yii nii ci la ñuy tabaskee. xayawaan yu génn yii. ndigal ñëwut ñu tabaski yii nag xar a gën bu xar jàllee bëyee topp mm-hmm. nag topp ci gileem topp ci waaw nii lañ mm-hmm. loolu la wuuteeg xët yi bu ñu def ci màkk moom mu gën a rëy yàpp bi gën a bari moo fii nag yàpp gën a baax moo gën mm-hmm. xar xar mu rot ne moo gën ci ñu tabaski yooyu it dañ koy séddale xarit xar mu góor mu kenn tapput mu gën bu jàllee xar mu góor muñ tàpp muñ tàpp mi sax nag bu gënee duuf mi ñu tàppul mooy gën nga mhm. teg ci xar mu jigéen maanaam léppi xar mhm. moo gën bëy léppi bëyit moo gën nag mhm. léppi nag moo gën gëléem xar daal moo jiitu bay topp te xar yi dañuy xool bu góor bi ñu tàpp ak bu góor bi ñu tàpp ak bu jigéen bu benn ci yooyu nga jàll ci bëy bëy wu góor wuñ tàpp ci bëy wu góor wuñ tàpp ak bëy wu jigéen moom nga dem ba ci nag wu ba ci gëléem gu jigéen moom lañ gënante lu ci waaye man rek xam na lu muy sunna loolu defi nag ñoom ci ci ci xar lañ ko yeew mhm. duñ nangu ko tabaskee leneen lu xar léeg-léeg bu ñu wutal ko mel noo xam ne kenn du sañ mhm. a lii daal mooy yi nga xam ne euh, fii li ko amul njëgu xar boobu mat béy moom indi ko ci kër gi boo yeexee sunna la nag <laughs> fii nii tabaskee wu moo gën tabaskee nag mhm. kon saa buñ saa buñ gëmee ni ndigal la su nangoo ne ndigal la rek du metti ndax kii ko def day jaamu yàlla waaye toppul aadam te bu ñu ko wéeree ci aada nag mooy waral mooy waral yi. Hmm. kon euh, noonu lañ gënante dara jënd benn ci yooyu euh, tur tur dara ngir yàlla. Hmm. jërëjëf euh, lan mooy sifaat yi maanaam melokaan yi yi nga xam ne moom la xar mi war a mel daanaka junjaale nga ko sax. waaw xam nga bu dee bu dee dañuy wax ne bu dee xar. Hmm. dañuy sart na mat at. mat at. waaw loolu mooy masab Malik. loolu mooy alqawlul mashhur. donte nag am na ñuy wax. fukki weer am ñu wax juróom-ñetti weer. Ah. am na sax ci yeneen ngir ñu wax juróom-benn weer. waaye daal li nga xam ne moom moom gën a bàyyi xel te te moom wuute amu ci mooy xar mi na ma daal. Ah. benn bis la tegal. maanaam xar mu juddu euh, yow mu arafa daaw. Ah. bu bu ñëwee ren bis na def sax bu dee bëy at mi na tegal weer. bu dee nag na am ñetti at bu dee gëléem na am juróomi at. loolu la wax. kon melokaan wu at yi dañ ci bàyyi xel eh, na na na na mucc ci ayib yi nga xam ne it day tax du ma tabaski hmm. bokk na ci bu mu bopp bopp di fees yoo xam ne ku ko seen xam ne daw loolu day jeexital jàpp hmm. bu mu doon boo xam ne day soox soox bu fees bu ànd ak moroom hmm. doon bu yooy bu ëpp boo xam ne boo ko séenee boo ko rayoon doo am gares amul yokku dégg nga bu mu doon boo xam ne it dafa béjjén yi daa foq te wéragul maanaam waxuñ ne na doon ba muy béjjén de maanaam loolu xar mi am ay bëjjën daa bokk ci li ñu sopp waaye nag bu béjjén daggoon di nàcc maanaam wéragut ñu di ko faj loolu feebar la bu fekkoon day xar moo xam muti amuti béjjén wala mosoon na ko am waaye dafa dammoon waaye fa wér na hmm, kon loolu it loolu it mucc yooyu nu mucc ci gen bu dagg am xar bu genn bi bu ñu ko xaajee ñetti xaaj bu suus ba daggee mënut tabaski bu dee xar moo xam ne amul genn mënut tabaski. nob bi bu mu xar lu ëpp suus xeet yooyu la ñuy limal yoo xam ne ay xeeti ayib la xam ne bu ci amee. ko waroon laaj tamit bu fekkee gémmiñ gi day xeeñ wala dara ndax. lu la bokk maanaam hmm. ndax xeeñu gémmiñ wér ak wéradi hmm. waaw ba mu doon boo xam ne daa def nga xam ne da nga ko gis muy dox waaye da ëmb fu jóg waaw yooyu ay ayib la yoo xam ne day jeexital ci ndax bopp day dugg ci biir buntu bopp rek bu bopp dal hmm. waaw baxar ci la bokk. Uh-huh. na ci mucc ngir doomu tabaski. Uh-huh. bu mu doon boo xam ne du mënta meem. Uh-huh. mënta meem mënta muy boo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa ëmb daa am ci jur gi yoo xam ne bu ëmbee bu toll fenn fi du man du memet yi nga xam ne ñàkk a mën a meem gi du du loolu. loolu lay bay. mbokk bi dafay laaj mu ne ndax dana doy ci am tabaski ci nit ki mu jën jënd benn xar moo xam ne maanaa da ci yéenewaale eh, maanaam ay bokkam wala waa kër gi yëpp rey menn xar yéene wàllu leen waaw xam nga tës gi. kii ñu wax ne la mën na ko ku ne ki ñu wax nii. Hmm. jullit bu ko man bu ne sunna la ci moom def ko. Hmm. waaye nag yow yow man nga koo def defaale ñeneen. Hmm. waaye ci kaw yu sart yow bu fekkee sam xar mi nga yor nga xam ne ci ngay tabaski. bu kii yéene wàll ñeneen. na ci ñetti sart ki nga kii yéene wàll na doon sa mbokk. na doon sa mbokk. waaw na xam lu ngeen bokk. na dëkk ci sa kër na doon koo xam yaa koy dundal ñett yi bu dajee saxara yi mën nga ci yéene waale nuñ mën toll ci kër gi rek hmm. doo leen doonte ñoom tabaski war sunna loon ci ñoom it boo leen ci yéene waale mu wàcc leen duñ am yàpp waaye am na yoolu tabaski hmm. sante yow sa sa sa sa yow laa war tabaski bi ak say waajur yu ñàkk sa soxna ak say doom yu ñàkk yu amut te doon gone hmm. waaye say rakk ak say mag ak say bàjjan nag say nijaay ak ñu bàyyi ndaw ak ñooñu ne woon sa kër. Mhm. di say mbokk nga di leen dundal sañ nga leen a yóbbaale ci yoon bi. Oh. ku ci amoon njëgu xar comme lu ne soxna. Mhm. soxna tabaskil ko wër su ko mënee sunna la ci moom su na loolu war naa war si bu baax moom. waaw tabaski su sunna moom mbokk yi am na ci ñoo xam ne moom. dañuy jàpp ne moom tabaski nga sax yàlla ni ko sante góor gi bu ko mënee noonu lañ ko sante soxna bu ko mënee hmm. waaye nag góor gi su ko manee mën na yóbbale soxna moom ko moo ko ci këram nekk mu di ko dundal te atteb mbokk ndax soxna du mbokk mën naa ma ñu doon dañ ko yëgal ci mbokk hmm. moo tax bu dee ñooñu boo leen yéene waale moo ci leen ndax mën naa alal ba tabaski nekk sunna ci moom borom këram ne ko bàyyil ma yéene waale sama xar hmm. waaw day day am yoolu tabaski waaye nag xar mi moom kii jeeku moom léegi beneen beneen xeetu yéene bi it mooy yow bu fekkee da ngay rey am xar moo xam ne yéene ci sa bopp yow dangaa dangaa rend ñaari xar mhm. benn bi muy bopp wala ñii mu wax bu ko defee nga rend xar nag meneen xar mi nag ku ku la neex nga yéene ko ci moom mhm. moom sartu ci daal gi yow bokk ko ci man mhm. nga ne mii xarkat sama xarit yeeg sama dëkkandoo yeeg ñu xam naa ne am am bu ñu amoon dañ tabaski jël mooy sa wax na ne bi mu tabaski daa rend ñaari xar benn mu ne bii maag sama waa kër bii ñi bëgg a tabaski te mën nañ ko sama xeet kon daal jëndum xar moom di ko yéene soxna si maanaam nga xam ne day mel da nga ko soxna si day jàpp ne moom nga jëndal xar mi loolu moom a ah, xam nga loolu mooy li nit ñi baaxoo def fii rek maanaam day gis koo xam ne moom la sant bu tabaski du hmm. tabaski am dañuy bàyyi ba am soxna sax doo ko loolu fi xaw si loolu moom laay bëgg a leeral hmm. nit ñoo xam ne ba leen tabaski hmm. xaalis ñu ne ko tabaski sunna la ci yow du lànk day dem ba kër jàtt ko am yu soxna yu bari war ko tabaski waratu ko ci lay door tabaski <laughs> mooy ne daanaka dañoo jiital jàpp ne soxna ko moom waaye bu dul soxna see néew ci da nga xam ne mm. jaamu yàlla goo xam ne ki ko mën lañ ko sant moo mm. tax bàyyi xel ndax euh, yéene jooju jaamu yàlla goo xam ne da nga ñàkk sa alal sonn ci ba noppi mm. doo ci am tiyaaba lu moo tax moytu yi mel ni da ci am nag ndax boo ko deful ngir yàlla rek doo ci am tiyaaba faaw nga def ko ngir yàlla xam ne yàlla la soxla waaye leneen nga ci yéene waaw nga def nga def ko ngir yàlla képp mooy tax nga àgg ci yàlla hmm. jërëjëf ndax dana dagat ci maanaam ay mboolooy jullit ñu bokk kenn ku ne joxe dara ñu jënd am am xar menn xar ñoo bokk sëñ xam nga lii borom xooy wax mooy tabaski hmm. ndawal gi dee su ko bokk dee su bokk njëg gi ñaari nit bu ñu am na dem jëndum xar ñoo rendi ko kenn ci ñoo amul tabaski bu ñu doon nanum xar wala ñu bokk jënd wala ñu may leen ko. Mhm. ñu bokk ko rendi. Mhm. kenn mu ci tabaski. loolu daal li ñuy wax léegi një yow tuyaaba ji lañ mën a bokk. waaye ndawal gi kenn koy moom. Mhm. moom sam xar nag ñi mu wax nii sañ nga leen tee wala nga am sa meneen xar yéene ci ku la neex waaye nag yow am ndawal. tuyaaba ji la la la am ñoom ndawal gi yow bu yàqu waaye kenn du ko bokk. saa bu ñu ko bokkee rek ñi ku seq kenn tabaski bi. kii mu ne dafay laaj mu ne ndax dana wér ci jullit bi. mu rendil am tabaski yéene ko ki nga xam ne dafay faatu tiyaaba ji ci mazhab maali bu fekkee ne moom avant muy faatu dénkaane ko woon hmm. dañuy sib moom di ko tabaski dañ koy sib waaw nit nag mën na fee jógee ne bëggoon naa bu ma jógee na njaboot gi nañ ma tabaski sama xar mi nañ ko bàyyi tabaski dañuy sant njaboot gi ñu wéyal ko waaye jékki-jékki rek dama tabaski sama jur wala sama xarit bu faatu woon dañ koo sib ci mazhab bi hmm. jërëjëf sëriñ bi mbokk bi dafay laaj mu ne eh, ki nga xam ne dafa jënd am xar am xar maanaa xar mu baax euh, ba mu yàgg am ci yaakaar ba mu yàgg xar mi faatu xar mi jekki-jekki faatu wala daal mu jekki-jekki sàcc ko moom nan lay def mu wutaat meen bu ko tëral moo tax fii ne bu di ko rendi hmm. am na noo koy tëralee xar mi daanu far damm waaw leew tegal moom di wut mi neen ah, ndax bu dammee matul tabaski ndax day sox booba moo tax euh, loolu daal du lay daal. Eh, eh, dama dama yeewu rek fekk ci guddi gi ñu. waaw ah, wala xar mi jékki-jékki wopp ci diggante bi faatu fi. Mm. wutal meneen boo ko mënee xam nga ñaaraam boo ko mënul wàcc na la. dëgg la de. ki am njëgu meneen nga xam ne moom xam na ne xar mi kat am na lu ci dugg ba lam ci yéene woon amu ko. Mm. Hmm? bu dee dañ ko sàcc perte ma amu ci ndax sàcc du rees buñ moom yàgg yàgg borom delloosi ko wala bu yemal xaay moom delloo fay la sa àq. Mm-hmm. foofu la mm. waaye nag yow tabaski ko benn nga man ko wutal meneen mënoo ko wàcc na la waaye du ñu wax ne masaan daal amoon na yéen tabaski sàcc na xaar ma kon tabaski bi jeex wàcc na ko jërëjëf xam naa ne ñetti laaj yi dama koy dama koy boole ñetti laaj yi euh, bokk bi dafay laaj mu ne lan mooy ban waxtu lañ war a rendi tabaski ban waxtu benn bi mu ne lan mooy atteb rendi ki nga xam ne dafa rendi njëkk imaam di rendi beneen laaj bi mu ne lan mooy atteb ki nga xam ne dafa waay dafa waay dafa fàtte wax bismillahi turu yàlla tudd turu yàlla ci ba muy rendi waaw xam nga rendi waxtu bu dee ilimaan la mm-hmm. ci xam nga si ñetti fan la ma mm-hmm. masabu Malik mm-hmm. fukki fan fukkeelu fan fukkeelu benn fukkeelu ñaar ñaar boobu jant xasee soo tabaski jeex foofu la yem foofu la yem ñii ngoro naan damay tabaski sama soxna di ko def ñaar fukki naa ñu tabaski ñu dajaloo dina soxna nga xam tabaski ñetti fan bu xasee wéy faat rayum xar la ñuy def daal ñuy léegi nag euh, bis bu njëkk bi gis bu njëkk bu dee ilimaan mhm. bu jullee boo xutba ba noppi foofu la war a rendi sëñ tere na njëkk loolu ñi ci des ñëpp nag seen waxtu mooy bu ilimaan rendi ba noppi njëkk bi bis bu njëkk bi ku njëkk rendi sa ilimaan wala ngeen nga yàpp waaye amoo tabaski amoo imaam imaam bi la jiite imaam ji la jiite hmm. bu ko defee kon waxtu bi mooy loolu yoo yor lay doon. Mm-hmm. ilimaan ji moom wax nañ ko tam ki ci des day déglu imaan bu dee bi si ci des jot ren di guddi dañ koy bañ moom. Mm-hmm. te masa bi ku ko def amatoo si waaye masalan tey kii amutoom xar ci bis bu njëkk wala ni nga wax ne ñu sàcc xar ma. Mm-hmm. moom toog suba sa xar ma fay. bis bu ñu fukki benn mën na ko ren foofu moom fu ñu suba rek fajar jotee rek. mën na ko ba ba jant bi soo foofu ren di baax na bisu ñaareel ba it noonu kon loolu mooy waxtu. kon ñu xam ne daal tabaski moom bu jant bi xasee soo doo ko rey dangay bàyyi ba xëy. dangay bàyyi ba xëy. de ah. bis bu njëkk bi il faut nga xëy ba na ba naaj ba ilimaan julli ba xutba. ba ah. rendi ah. nga daw ko yi ci des nag bu jant xasee bu fajar xasee jot. nga xam ne salaatu xel bi nag wax nañ ko sëñ nga ko rendi waaye bu jant xasee soo nga bàyyi. waaw ñetteel bi mooy ku kan ku fàtte wax bismillah yi. waaw dañoo sopp wala boog ab sart la ci sax boo ko fàttewu mm-hmm. booy rendi dangay wax bismillah boo ko fàttee dana wax. waaye boo lànkee fàttewoo ko lànk ne doo ko wax. wow medd la hmm. li ma ta bàyyi xel foofu mooy jullit moom lañ bëgg mu rendil boo xam xaram ngir royee ko yonent bi sallallahu alayhi loolu nag jullit bu góor bi ak bu jigéen bee ci fii dañoo siiw jàpp ne jigéen mën ci lislaam jigéen mën naa rendi kon jigéen sañ naa rendil boppam mooy sunna it nag waa même xaram na ko rendi bu góor gi bu dee jigéen bu dee gone gi ku dem bu mënta rendi nag la ñu wax ne wakiil keneen hmm. kooku ne muy wakiil na doon koo xam ne wóolu na ko ci diine muy koo xam ne si daram ci diine wóolu bu ko reeloo sa xar ah. ndax jaamu yàlla bu dee ci bu dee ci tabaski moom ab julit lay doon sart la ci ku rendiloo ku dul julit du dagal xëy na bu doon nag ab gàtt leneen moom nga xam ne gàtt booy defar nii rek ahlu kitaab seen rek dagal na ci lislaam ah. waaye tabaski moom day jaamu yàlla kenn du ko rendiloo ku bokk ci jullit moom ah. kon faaw ab julitu koy rendi dégg Euh, waaye li gën mooy yow mi ko moom nga dana ko sa bopp moo xam góor nga moo xam jigéen moo xam maa nga wala boo ko mënul nag dañuy sib sax nga man ko ba noppi di ko war hmm. hmm. euh, mbokk mi dafay laaj mu ne nakan la ñuy rendee ci charia maanaam rendi rendi ci charia hmm. dañuy bëgg li ngay rendi bu dee xar la xam nga daa ma dañ leen di rendi am dañ leen di loj xar ak bëy ak nag dañ leen di rendi giléem dañ koy loj bu dee la ñuy tëdd wetu càmmoñ nga xam ne yow mi koy rendi jublu xibla hmm. sa loxob càmmoon mooy féeteeg bopp bi hmm. su ko defee nga ñàdd ko hmm. ñetti yëf lañ ciy dagg li ñu tuddi xulqóob ak ñaari wadaj yoo xam ne ay sidit la yoo xam ne yoo xam ne ci la dara di jaar xulqóob mooy boli gi waaw yoo xam ne yaakaar naa ci la noogi jaar ñett yooyu lañuy ñuy dagg te daggee ko ci kanam boo ko daggee ci ginnaaw medd la loolu man naa bàyyi xel mën naa bàyyi xel ci kanam lañ koy déggee moo tax yooyu yëpp nga xam ne sax dañ cee war a tàggatu bu mhm. mu man ko mhm. ku mën a gutoon war nga ko jàng ba man ko ndax jaamu yàlla la mhm. waaw jaamu yàlla la maa daal moom ñaari sidit yi séq boole gi ak boole gi lay dagg ba mu jeex waaye du dagg ba bopp bi tàggale ko loolu boo ko defee baax na waaye nag gënut gënut moom waaye nañ ko dagg ci kanam kenn dagg ci ginnaaw jërëjëf euh, xam naa bi xaw naa niroog euh, laaj bi laaj bi bi jàll moom it euh, naka maanaa dafa dafay wax ne ndax dana dagan ci nit ki mu wakkil keneen ngir mu rendil ko euh, te moom mu bañ a rendi te mi ngi taxaw. waaw loolu wax nañ ko léegi. Hmm. xëy na kii mënta rendi moom sopp nañ mu teew. Hmm. buñ koy tëbë buñ koy rendil. mu hmm. teew. teew ci barab bale sopp nañ ko waaye nag na doon koo xam ne daa dem mënu ko. waaye fii yaa ngi mën a rendi moom. rendil sa bopp moo gën. ndax dana jar muy teg loxoom ci mbagg meeg yu demee noonu. mën na taxaw rek. taxaw rek ndax am na teg mbagg yoo xam ne mhm. bu dee kële rendil bu dee jigéen ñi rendilul. Mhm. te ki ki ki muy teg loxo du ma xaram ci moom. Mhm. kooku dagal. na bàyyi xel. waaw moo tax na bàyyi xel teew xam ne. moom ñi ñi ngi jàmm yàlla waaye xay na moo ko bëggoon dawal boppam mënu ko. bu fekkee ko. ñu bàyyi xel ne bu rendi bokk na ci tëjee yi paaka bi nga yor di ko rendee na doon bu ñaw yonent yàlla Muhammad alayhi salaam daa wax ne yàlla daa bëgg lu ci nekk boo koy def nga rafetal ko bu ngeen di rey na ngeen rafetal na ngeen di rey bu ngeen di rendee na ngeen rafetal na ngeen di rendee hmm. daas leen paaka ba mu ñaw noppal leen li ngeen di rendi hmm. waaw jël paaka bu ñawa di di ko xaj muy dagg di ko loolu lañ koy tere hmm. mu gën a gaaw moo ci gën mu gën a ñawee bi ci des it nanga ko nëbb paaka bi mu gis ku mu xam nañ koy rendee bu rendi moroom bu fekkee dangay ngay rendi ñaari xaw la ñetti xar bu mel ne taxaw di seen ñuy rendi moroom waaw loolu moom da ngay gis ne dañuy dajale xar yi rek di rendi ma ne ca ginnaaw buñ moom bu ko yeneen seen bu ko feneen door andi door ge andi beneen te bu ko kenn feste seddu hmm. loolu buggal la su soo ko door rendi dund gi day am na loo xam la da koy yëg hmm. yéen ba ko tàmbalee fees hmm. ci tegg yi mooy atteb aada yi nga xam ne da gis ne dañ koy def ci ci ci rendi maanaam di ko jàppal ak di jël deret ji di laal ci seen jëyeeg ak yu ni demee. waaw xam nga nit di tax làmbatu baaxul mooy loolu xam nga deret du ñu sobe de. Mhm. maanaam deret joo xam ne ab gaañu gaañu moo ko génne. Mhm. loolu mooy ak damul mas foofu sobe la fu mu la taq da koy raxas doo mën a julli nit nag nu muy jëlee sobe di ko taqal boobu. waaw day ñàkk xam na. Mhm. ñaareel ba jàpp jàpp la ngir laab la. ndox bokk na ci yi gën a cher ci àdduna jàpp la mu xam ne wax mën na fexe laab. <laughs> kon noo jublu jàppal yaa ngi yàq ndox ci doomu kan moo indi loolu daal maanaam nga xam ne dafa war a jàpp. Euh. suñu mbokki séeréer yi wala wala daal xaw euh, ak ak xëy na nag euh, toppatoo ba mu rafet moom bokk na ci liñ bëgg. waaw ah, sang ba mu set mm. di ko di ko sang ba mu set. bu ma nee am béjjën baax na bu góor bee gën bu duuf bee gën bu weex bee gën. Mm. waaye tekki nag ne amul loolu doy. waaw maa nag yi ci des moom euh, bu dee deret ji moom mu mat a moytu hmm. ndax taxaal sa bopp deret gis ñu koy laal di ci laalal gone yi sax léeg-léeg hmm. jërëjëf bokk bi dafay laaj mu ne bu fekkee ne moom dafa am am tudd tudd mi dajeeg bisu tabaski gi ci boppam léegi nag mu am menn xar naka lay def maanaam ndax wenn xar mi bu ko rendee tudd mi ak tabaski gi mën nañ koo bokk wala déet bu ci jubloo ñaar yëpp waaw ñàkk ñaar yëpp hmm. waaw kii mot na bàyyi xel <laughs> xam nga tabaski dañ cee digle tur deret ngénte dañ cee digle tur deret hmm. ñoom ñaar mënuñu wutante mënuñu maanaam mënuñu bokk leen lu ci nekk ndigal bokk na ndax boo bëggee am ñaari jaamu yàlla yëpp moom da ngay wut ñaari xar nga xam ne yàllaa ko sant mu tur deret ñaari yoon ci bis bi hmm. nga wutum xar ngi tabaski wutum xar ngi tudd mi su fekkee ne nag benn la mën a am mu xool tus tabaski moo gën a nekk sunna maanaam sunna te parce que sunna mu akkada la ci bu dee bu dee bu dee ngénte moom am ñoo xam dañ koo sopp am ñu ne sunna la waaye bee gën a dëgër kon mu xool jaamu yàlla gën a mag mën na ko caa yemale bu ko neexee liñ mën a boole mooy tey nga am ceet bisu mën ngaa ren di xarum tabaski ni ceetale ko gan gi waaw ndax ceet santu ci tur daal berne sa ci santaane bu la neexoon tabaski doo doo ren di xar doo doo ren nag da ngay dem jënd yàpp wala nga jënd jënd bu fekkee ne ñi ngi gan ñi nga am jën lañ bëgg kooku sartuñ ci tur de moo tax foo amee dara rek wala nga am ku la doon gànna si sa xare wala sa mbokk wala sa kilifa bis tabaski xare mi nga tabaski man nga ko togg gànnale ko waaw waaye nag bu dee dañ caa santaane tur daati boppam mm-hmm. tabaski la bàyyi xel loolu day am léeg-léeg sama mm-hmm. dégg soxna soo xam ne nii daa am mbokkam toll fenn mm-hmm. xam ne bañ ko waxee tiit mais ba àgg ci sa mbokk mi toll na fenn di ñu am yaakaar moom dama xam ne ba mu juddoo lañ yàlla mu màgg ba am doo mm-hmm. mu am doom yow ngi tiit ndax yoo ci gàll sa bopp ci mm-hmm. yàlla tegul ko nga xam ne boo soñoon mu mm-hmm. kooku bu ko bettee ne ko ëmb ba yàqu na day béy nga bu ko ci la meññit bu day jooyee jooyee day jinnikel lay doon ndax ko ci gàddu yu mu ci gàddu woon yoo xam ne bu judd woon moom problème yooyu nag mbokk yi nañ ci bàyyi xel lii ak fexe ba yamale ko fu mu yàlla ku ko mën def ko ñiy wëreel di ko laaj fu ñu dugg fa waaw loolu yàlla sant ku ko mënul wàcc na waaye faw bu tabaski taba amagu ma xam ne fii ne bu yore teroo rek jàmm yëpp mooy am nga xaral amagoo xar donc mu solo barakallah nañ ko nañ ko dugal fi mu fi mu doon uh-huh. noppalu noppal ñi ñi ñuy àndal waaw uh-huh. uh-huh. moom lay bàyyi la xel ñëpp ñaan yàlla yit ñu àgg ca jàmm lu ñu ci def na yàlla nangul li mbokk yi ne ñun yàlla moom ay salaam noonu na bu weeru tabaski teroo ku nam ma tabaski wax bokk na ci xadis li ñuy sukkandiku ba du farata ku ci nama tabaski bul laal kawar bul laal ay weer bu weer wi taroo bu weer xasee taroo juróom-ñeent ba bëggee tabaski bu nopp ba rendi xar bu fi dagg kawar genn bu fi lew yi loolu sunna suñu islam soo demee nag ba julli ba ñëw dañ rendi xar mi a door sañu def yëpp la masha allah juróom-ñeent juróom-ñeenti fan yëpp bëgg nañ ko leen woor baax na ci it nag ëmbuso bi nga xam ne day fekk bu ko wooree <laughs> macha allah buy waree day fekk. juróom-ñeenti fan yi tabaski yëpp yëpp waaw. waaw ah. rawatina ñaar yu mujj. juróom-ñetti ak juróom-ñeenti waaye yëpp juróom-ñeenti yëpp lañ bëgg hmm. hmm. ñuy wax ne bëccëg yooyu. Hmm. moo gën ci at fukki fan yi mujj ci Ramadan ay guddeem moo gën waaye fukki fan fukki bëccëg yi tabaski ñoo gën ci at mi. macha bi yoo xam ne kenn yàlla lu gën daf lu baax ci bëccëg yooyu. daal xam ñuy dàkk yow ma arafa bi kon. mu boole ci juróom-ñeenti yëpp juróom lañ war a boole. ak am ñuy woor bisu tabaski gi ba ba war ray saxaaba yoo xam ne dañ daan génn ci bisu yooyu dem ci marché mhm. di kabbar di bàkk yàlla masha allah dañoo bëgg ci mhm. mat bàyyi xel la fukki fan ci jiit mhm. jërëjëf kon ñu bàyyi la nga tàggoo kon jërëjëf sëñ leen sant di leen gërëm ñaan yàlla dafa leen tawfeex yëpp yàlla àgg ñu ba ñu weesu ko te bu may ñu mën koo def mu nangul ñu def yi sàmmal ñu suñu kilifa yi Cheikh Mouhamadou Mountakha bokkam yëpp sàmm lislaam bi sàmm diine ji euh, sàmm réew mi ak ñi ko dëkkee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu euh, jërëjëf sëriñ bi yal yàlla nangu ñaan yëpp su borom yàggal fi Cheikh Mamadul Muntaxa ak mboolem kilifa yi diine yi te defal ñu tawféex weeru bi ñu nekk ak bis bi ñu àgg ak jàmm te ko déwén te suñu borom jàppandal mbir yëpp ci wér gi ak ci poos yi ak lépp loo xam rek mooy tax mu jàkk Euh, kon mbokk yi gis ngeen bind yi lañu indi woon di ci gàggantiku ci seen émission gàggantiku bi nga xam ne euh, dayrum xadimatul xidma moo koy amal ci weer wu nekk ñaari yoon di ko jaarale ci chaîne bi di MKTV ak euh, GMT TV ci YouTube bi wala ngeen seet ko ci Facebook ak fu nekk rek ci support yi nga xam ne ci wàllu jumtuwaay yi nekk ci biir support yi da ngeen ko ci mën a topp ak fu ngeen mën a nekk ci àddina bi ñi ko noonu tamit fu ngeen mën a nekk bu leen neexee ngeen yónnee ay laaj ci whatsapp ci numéro bi di 78 689 28 28 78 689 28 28 kon ñu ngi gërëm bu baax sëñ Abdou Khadir Bousso mi réaliser émission bi ak bokkam yi nga xam ne ñoom la àndal ñuy yor caméra yi di Serigne Cheikh Diop ak Serigne Bàcc ba di gërëm tamit téléspectateurs yi ñu doon topp yépp euh, ñi nga xam ne ñooy bind ay message ak ñi nga xam ne ñooy yónnee di ñaanal Serigne bi Eh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen dig daje incha allah ci seen beneen jataayu gàggantiku asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم